ba perte. man problème mu cellule rek am. na ay xeetu serrure de sécurité yu bari yu mucc ayib TQG am na ay xeetu poignée de porte sur plaque ou détachable yu inox anodinox samat diamant noir champagne. lépp lu jëm ci pommelle ak charnière am nañ ko ci inox ak leton te baax na ci brise de mer du xoy te du xomaag am na itam kano de sécurité yu baax ci couleur boo leen bëgg TQG am na ay panneau contreplaqué ak i formica ci fason couleur bu ba ci ay poignée meuble ak accessoire u menuiserie TQG notre force la qualité bokk yi sant yàlla julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante day aju ci xew-xewu jamono bu tiis boo xam ne day yoot jullit yi li ko tàmbalee tey jëm ca kanam kanam yàlla na ko yàlla fànq ñëpp xam nañu ne àdduna euh, bi fi muy doxe fépp saabu bu yi daara yi bëree euh, dem di dallu ji ña leen doon jàngal ak di leen taxawu ci seenu yàng ñoom suñu dee bër ca daara ja it duñ bëri ci seenum xel duñ bëri ci seeni xalaat la koy waral mooy <clears throat> ñi ngay xool fa ñu jaaroon daaw ca njàng ma ak taxawu ñay jàng ana fu sooxee daaw ñu bëgg bu déwénee bu daara ubbiwaatee ñu saafara sox sox booba ana luñ cay dolli ak ana luñ cay wañ waaye bokk yi nag lii yor jullit yi rawatina fii ci réew mi ci laa jëm si yàlla na ko yàlla fanq ñun ñëpp xam nañu ne euh, aayab alxuraan bi njëkk a wàcc te wuute amagu ci ba fii mu nekk li wuute yi bari bari ci ay déggin yàlla ma ngi cay wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di tudd am njàng njàng moo xam ne la cay jiitu mooy xam ana nu ñuy fase cib xol yàlla dëgg-dëgg mooy kan ana nu ñuy fase cib xol li yàlla santaane dëgg-dëgg lu doon fas ku yéene jëfa ci ay cër loolu su ko nit ki xase ba xam dana xam moom mooy kan moo tax am na yëngutu yuy xew léegi gone yi di ci wax ba naan gëm sa bopp waaye dañ ko waroon a tudde xam sa bopp ndax nit ki bu xamee kan mooy boroomam rek dana daal di xam lim doon ci boroomam muy as njaamam su boobaa la mu war a wéyee mooy jëfe ndigal bàyyi ay tere loolu it suñ demee ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dinañ ci fekk luy firi aayaat yooyu bu baax a baax a baax iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalami allama al insana ma lam yaalam su boobaa nag bi ko yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajaloon na ko ba mu doon koo xam ne bi yàlla waxagut ak moom it ñam dëkkaloon ñu ko bàyyi woon xel lañ waxtaane nañ ko lu bari ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddoon na as-saadiqul waadil laata muy nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bokk yi suñu dox ba yàgg jamono di dox di dox di dox ba yàgg ñu ne euh, daara yi tëj nañu ña doon jàng dem dallu ji ña leen doon jàngal toog di xalaat ak nos daaw fu rëq-rëq amee woon ak ren lu ñu koy saafaraa dolliwaat la baaxoon fan yi génn mën na ko tënk ci ñeenti fan ci weer wii nga xam ne ci lañu nekk septembre rajo yu bari ak xëti yëg yëglekaay ay journaux yu bari bind nañ ca sur seeni mbind ne lenn ci jàngukaay yi nga xam ne bitim réew ko moom tam samp ay wànqaasam ci Sénégal dañoo bëgg bu daar yi ubbiwaat ñu tàmbali faa jàngale loo xam ne bind ga ñu ko bind sax tàmbali na ko woyefal ndax ba ñu ko bindee def nañ ci ay li ñuy wax micro trottoir def ci ay revue de presse mu mel ne lu simple la loo xam ne foofu lañ ko lafe bëgg ko def ci xeli nit ñi wane leen garawul ginnaaw kenn waxu ca dara ana lu ñu wax nañ ca jaare laa ciy jaare wallahu la yastaxi min alxaq te inna allaha la yastaxi an yadriba mathalan ma baudatan fa ma fawqaha dañoo wax ne daara yooyu dañoo bëggati léegi ci seenu tëraliin su gone tàmbalee am ñeenti at képp ñu tàmbali ko woon boppam moo xam muy góor wala muy jigéen bokk yi gone ak ñeenti at ku ko tàmbalee woon ne ko góor nga góor nii lay def jigéen nii lay def su boobaa tàmbali nañoo rey li ñuy wax kersa ci aw xeet kersa loolu bokk yi nit dund na xale bu góor dund na ba am fanweeri at ak juróom ñu jox ko soxna te xamul nu muy def loolu moom ku yebu lu way xam mu dugg ca te tàmbalee tàllal ay loxoom yàlla suñu borom fanq ma mu pexe su dee ku jigéen it wax waxaale wuñ ko moom it foofu la daan jaar ak moom te loola mooy jikko yi nit ku nite te mooy jikko yi diine kersa gu mat sëkk kon léegi jaar nañ yoonu dindi baat bi ñuy wax kersa moom te la muy jur sa kanam kersa kersa gu dañ moo ci gën a tuuti ndax bokk yi jaar nañ ay pexe ba tàyyi ak jullit yi ci ne fexe leen ba seenub lim di gën di wàññiku fu ñu ko jaar waxtaan nañ ko fi ay yoonu yoonu yoon fàttalante nañ ko ay yoon ñu bare bare bari wax ci waaye day def lu tëdd rek leneen jóg lu ko gën a metti gën koo jan bokk yi suñ nee nañ fexe ba nit ñi bala ñoo maye kenn na am fukki at ak juróom-ñett te mooy tànnal boppam ku ko neex ñu may ko ko ndax ko koy neex mën naa gën ci moomam déet loolu moom xare nañ ci ba ñu ngi bëgg a daan dañ naan gone gi duma ko may kum bëggul te moo ne am na ahadis yu sax mais bu dee gone gu jigéen saa bu tàmbalee gis dara rek nañ ko may borom kër su dee gune gu góor saa bu tàmbalee mel nii mel naa rek loolu fiqhul islaami natt natt na ko nañ ko may soxna waaye nee nañ gone gu jigéen bu ko kenn mayata amut fukki at ak juróom-ñett jëm ñaar fukk ba am na ci réew yi ci def ay loi ku ko def sañ lañ ko jàpp xawma nag agsi na ci réew même déet te su boobaay suñ ko mayee nañ fexe ba ay doomam du bari na def bu amee doom ren bala ko amaat di juróomi at fàttale woon nañ fi ne loolu su ko fekkonte ne jur gi ñu ngi koy def ñoom fu nii jël ay tabaski fan la nit ñi jël ay tabaski wala ay hadi ay hadaya yi ray ca aj ga wala ku soxla nag foo koy jële walla sax fu ñuy jële meew ndax meew moom bu jur amut bu jur jurut meew du am jur gu jur guy am meew te juragut moom pexe àggagu ca faw mu am doom ba noppi ñuy ratt yi wéy nag fu ñuy jële meew kon day mel ne wet googu rab yi ak euh, li ñu tudde ay mala ñun ñu ciy bëgg a raw ñun ñu ciy bëgg a raw suñu borom doon na wax ne nit ñi su fekkee yàlla dana jox ay xel te duñ ca xalaat lu baax jox leen ay nopp te duñ ci déglu lañ ca war a déglu jox leen i gët duñ ca xool lañu war a xool jox leen ay cër duñ ca jëf lañ ca war a jëfe su boobaa dañuy mel ne jur gi in hum illa kal an'am ba yàgg sax mu ne bal hum adal ulaika humul ghafiluun dañuy dem ba tardé ba jur gi nga xam ne ci seen loxo la nekkoon raw leen ci aw doxin ci seenug dund yàlla na nu yàlla musal ca loola bokk yi daara yi nga xam ne nee nañ ñoom ñoo koy def te dëkk bitim réew jotewuñoo ñoom dara ca seen pas-pas ak seeni aada seen pas-pas mën na ko nangu seen aada nangu ko waaye nag bu xasee ba ñëw ci réew mi moom wax nañu ne téeméer boo jël la ci ëpp journaux yooyu ñoo ko wax ña fay jànge boo jëlee téeméeri ndaw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci waa réew mi lañ dëkk moo xam muy ñu dëkk ci réew mi wala ñu dëkk ci réew mi tayor këyiti réew mooma wala këyiti réew yooya ñu xam ne am réew këyit du ca boole nit loolu ci def ci kaw la nii rek waaye am réew la cay boole nit mooy deret deret ak pas-pas ak ak yëg-yëg deret ak pas-pas ak yëg-yëg du ay këyit kese-kese am na réew yooyu da fay am këyit mel ni ñoom fu ñu ne fii la waa réew mi jàng mën faa jaar ni ñoom yéen waa réew mi am yëpp nga di ko am waaye léeg-léeg ñu kaa ak yow ci mbedd mi tapp tappal la nga ne kañ ngay ñibbi saa su rek gan lañ la jàpp loolu nag ñii ay julit te jàpp ne foofee njàng mu baax a fa nekk nañu bàyyi xel loolu bu baax ci seen doom yow yi ndax tuuti la ñuy dox rek xale yu góor yi tàmbalee tële te ku tële dootoo am doom nis tuuti xale yu jigéen yi tàmbalee xam lañuy xam su boobaa dootuñu bëgg am jëkkër jëkkër moom la gën moom la réew mi gën a xam bu dee ci yenn barab yi fu mel ni fii ñu naan dootu bëgg am boroom kër am na su lu muy jur xeet yi fa mu yamoon lay yam duutu yokk suñ demee ba tàmbalee xamal xale bu góor ci ñeenti at nu muy def xam ni góor la su balaa am fukk balaa am ñaar fukki duutu duut boo ko joxee soxna du ci man dara te su boobaa moom foofu la yam moom ak dundam foofu lay yam loolu nag jullit yi war nañ cee bàyyi xel bu baax li ci dolli ko mooy ngor itam day daal di jeex ndax li doonoon ngor mooy ku góor bi ñu ko joxee soxna bi ca xam dara na jigéen ji nga xam ne moom wërta gën këram su boobaa ngor dafii daal di jóge su boobaa it jom jiñ daan bàkke suñuy xale yu jigéen di leen defal lu nekk ci seen bis ba ñuy dem kër su boobaa ñàkk jom day daa tàmbalee eh, génn ndax koo xam ne li ñëpp xam la xam amut jenn teraanga jum yaayoo yàlla nun yàlla musal ci loolu kon nañ xam ne gone yi suñu leen tàmbalee xam loo loolu ku ci am ñaar fukki at dootoo denc ci soxna maam ndax da ngay tëlee ndax bokk yi mag ñi daa dañu lépp ne kenn ku nekk bu demee ci àll bi yorut lu dul benn balu fetal te rëbb aw rab tax koo jóg su lay def rab bu jóg mu tiire rab bu mu gis rek taal benn ba la bam yoroon day daal di jeex moom rab ba mu soxla woon day tëb te du am lu mu tiiree loolu wala fi leex i leer naññ la yàlla nu ci yàlla musal e, loolu nag ña koy tëral seen yoon nekku ca ndax mënoo tey ci loxoom nit ne kii moo ko moo ko moo ko tëral dañ naan kuréel gi rek kuréel gi nga xam ne mooy tëral nu ñuy jàng rek moo ko ci bëgg a boole su boobaa nag ki nga xam ne mooy yóbbu doomam na xam ne doomam jëm yor te di jullit te su faatoo bëgguñu waajal ko waajtaayu jullit jàngal ko alxuraan ji jàngal jullit yi jullee ko ni ñuy defal jullit yi sul ko fa jullit yëpp na ko waajal bala moo faatu xam ne doom yàlla koy maye du lu ñuy jaay am na ñooñ bu ñu doon jaay doom am nañ ca lu bari waaye yàlla moo koy maye yàlla séddalewu day maye ñu xam ne doom yooyu Euh, li ci jiitu mooy sant ci yàlla xam ne bu xasee ba juddu day tàmbalee layoo ak ñoom suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan euh, di dénk doom way juram ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iyaahu yàlla àtte na ba noppi dogal na ci jullit buy tuddoob jullit da ngay dégg sax ñu ne man jullit buy pratiquer laa jullit pratiquer wut nu muy tudd jullit man man je suis musulman pratiquant noonu lañ koy làkke mooy daal jullit boo xam day def li jullit yi def waaw jullit bu def jullit def kay muy su ko lima jullit duñ ko yàlla ne dogal na ba noppi atte na li ko tàmbalee tey jëm ëllëg ci ku ko nangul bu ko xasee ba nangul rek bu mu jaamoote kenn ku moom jaamu gi mooy jëfe ay ndigalam bàyyi ay teraam waaye lam ca teg ci ngay xamee ne way jur am na yan bu diis bu ko doomam amel waaye moo ko gën a amel doomam wa bil walidayni ixsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul ne kii mooy sa wayjur moo xam wala jigéen rikk na ko taxaw bi muy man rawatina bu demee ba mën a tut su demee ba mën a tut ba tàmbalee lëjle lakkale wit woote yu dul jeex di tifli fi mu toog di xaxtandiku fi mu toog di ñandu fi mu toog su ko neexee soo ko joxee ndab mu wéq ko tuur ko dégg nga loo ko solal ba sonn ca mu jàpp mu wan la ne ne soxlawuma ko daal di koy tilimal fa di laaj ba xam reer naag réerut añ naag añut bu mu tax nga ne waay mbas kii moo sonle waay wala nga ñaanal ko yàlla mu faatu waaye nee ko yow kay ndékkee goo xaram ma andi la ndékki añagoo réeragoo di dalal am xelam wax waxfid lahuma janaaxa zulli min arrahma lépp loo xam ne sa xale bu tuuti sa doom ju ndaw daf la koy def nga muñ ko muñal ko sa wajur te xam ne lebaloo nañ la ko bu ñu bayee faatu dëkkal dëkkalal ci saw làmmiñ rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira waroom xam-xam yi nag yàlla yàlla nga yërëm sama wajur yooyu fi bàyyi ko mel ni yàlla day laaj foo ko teg nga ne li tax fi ma ko teg ma way ñoo ma teg ci aw yoon ba ma xam xaqi wayjur am na kaaf yoo xam ne di tashbih ak kaaf yoo xam ne day illaal kama uzkuruhu kama hadakum ak kama rabbayaani ndax nangam ak nangam lañ ma defal ba tax ma leen di ñaanal a ñoom ñaar waroom xam-xam yi nag nee nañ loolu wayjur yi yeeyoo ñaan googu mooy wayjur yi nga xam ne tegoon nañ seen doom ci aw yoon dëkk jëkk ci seen xol ya lañuy jëkk xam pas-pas bu wér bokk ca tàmm ko ci seeni cër moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne woon euh, ku ci sa doom amati juróom-yaari at buy julli na ko woo mu toog ci taggam di def muy gis donte waragu ko te xamagu li ñuy def lu mu doon waaye day tax su demee ba àgg ci war koo def fekk man na ko te bëgg na ko te tàmm na ko ci ay cëram loolu njàngale yonent bi sallallahu alayhi la sallam la muru awlaadakum bi salaati wa hum abnaau sab'i sinin wadribuhum alayha wahum abnaau ashri sinin suñ demee ba am fukki at ba loo ko yónni si boutique ba mu mën koo lijjanti nag soo nekkoo ko loo tee julli bu waxut lu leer jar na wantal ko ci ba mu xam ne julli du ay caaxaan waaye lu mu ca teg tàmbali leen a def nit wa farriqu baynahum fi lmadaji nañ ber xale yu góor ya ber xale yu jigéen ya xale yu góor ya ñu di leen yónni ca mag ñu góor ña seeni najaay seen bàyyi yu ak seeni mag ak ñañ tollool di leen boole ay dab bañ xam lan mooy responsabilité dëgg-dëgg bi war góor léegi-léegi nga wax ko li ngay dépassé par suuf ba mu xam ne eh, lii safut xorom ak lii safut kaani wala dafa tàng ba ëpp wala daa sedd ba ëpp gone du ko wax gone ko xam fa muy jóge du ko wax moo tax suñ mag bi newoon na maam Cerno moytu leen néegi jigéen mu ne ko moo ne man day sama néeg nday weesuwuma ko ak néeg soxna Anta Njaay mu ne ko foofu nag moom a tax di wax kii moo ko jur mooy wajuram bu jigéen kii mooy eh, ci waa kër gi la bokk waa kër moom Anta Sali mi baayam kuy tare nag góor guy dem muy dem ci néeg baayam néeg néeg yaayam waxaale wuñ nekk keneen lam leen doon wan mooy njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax yonent bi ne nit ki su fi bàyyi ko lam doon liggéeyi lépp ak i naalam day dagg day dagg ba mu des yat yu mu fi bàyyi yett yooyu mu fi bàyyi nag tudd na ca doom juñ jaarale woon yoon ñu ko war a jaarale kooku nag mooy xam ñaanal baayam bokk yi gis nañ fi ci ay société ci àdduna bi du ñu ko tudde sax ay société société nit mooy ñu taxawonte taxawante bu déggee ak yuux guddi lu mu ko jaral jaral ko ko mu génn dem seeti ba xam kooku lu muy yuuxu mu wallu ko waaye bokk yi société boo xam ne société lañ ko tuddee te kenn ku nekk boppam la fa nekkal loolu mooy lu ñuy wax jungle life mooy dunduk rab àll yi kéwal lu ñu bari bari ak i baroom ay kooba lu ñu bari bari di ab groupe ab groupe lañ tudd wala ab troupeau li tax mu tudd ab groupe de su leen woyeb société mooy kenn daal jëriñut kenn dara bu gaynde juux ak seen biir wala gaynde yi dañuy daawandoo kenn ku nekk tal boppam mbaa du foofu lañ bëgg yóbbu nit ñi yàlla na yàlla gàntal seeni pexe kon jullit yi yóbbu seeni doom ci jàngukaay yi nañ ko xool li taxoon mag ñi di di moytu yenn jàngukaay yi xam nañ ne dana jafe lool nit jàngal la ba nga sottal te jëloo ci moom dara lu jafe lay doon moo tax ñu faroon bañ ko rek xam nañ ne faw nga jaxasoo ak jikkoom faw nga jox soo ki aadaam ginnaaw wóolu ko ko ba jox ko rawatina nag gone gu ndaw gi nga xam ne yonent bi nee na eh, sol ci ati gone sol ci ati ay eh, at yam doonee gone mi ngi mel na rëdd ci doj wu tooy ciment bu tooy nga bind ca fii ak doj waa nga fa du faam waaye néeg ba mu doon mag nag mi ngi mel ne ngay bind ci kawam ndox fu sa ko teg koo gisatuñ ko moo tax ciment bu tooy bi ñuy joxe nañ xool kuñ ci rëddal loo xam ne ëllëg si biir bu yomal xiyaama buñ ñu ko wanee buñ ne jàngal doo am kersa jàng ci kanam mbooloo te loolu bokk yi lu jege la ku xas ba am doom yow say wax waxatuñ ko xanaa say doom kay kan moo la si wuut lañuy wax su fekkee la nga bëgg am nga ko nit ki nangu ne ku ko ñaanal lu nekk ba mu des gën sa doom kenn ku nekk ba sa ñoom doom moo koy gën waaye loolu nag société musulmane moo ma tax di wax bari na si ñoo xam ne dañuy jël seeni doom di leen sànni yi ca àll ba ndax mënatuñoo dëkk ak seeni seeni bàyyi ak seeni yaay ndax mënatuñoo dëkk ak ñoom ndax seen naqar gi ma tudd léegi ci mag rek mag moom fu mu doone mag mag la rek waaye xew mooy fab seen baay seen baay wala seen yaay yóbbu ko ca àll ba dëkk ñoom kese ak kañ bëgg a dëkkal ngi ci joxe misaal naan am na ñoo xam ne am na ko da doon wëral baayam fu mu ko sànni fu mu ko yóbbu mu ne ko déedéet fii jege na wala lii wala laa ba yàgg mu ne ko kon fii daal laa fi xam ci fu ñu yóbbu mag mu ne ko li tax ma wax la ko mooy man fa ma yóbboon sama baay moo gën a jege fii moo gën a sori fii kon moom moomee su amee xel dana xam ne moom it ëllëg si bi dañ koy sànni ci rek ndax loolaa fa xaw ñun nag liñ xam ci suñu mag mooy ku ci xas ba am juróom-ñaar fukki at wala lu ko yées sax njël da koy wàcc ndékki saa bu jotee ndékki yi da koy wër mooy yàlla na nga lekk sa këllëb doom su añ jotee du xam fu añ di jóge ndab yi da koy wër bu ko ci neex añee bu reer jotee noona njogonal sax dañ ko koy yët jigéen ñay togg ca waañ ba di ko yët wogg léeg lekk mag dajale wogg yi ba mu bari lool mu woo gone yi boole ko coow sañ koy yët yoor yoor jaxase ko guux ca la muy guux jox gone yi ñu guux bokk yi loolu nag ku ñu bëgg a tàggale ak moom jaarale nañ ci yoon woo xam ne bii suñ musiba la rawatina dutuñ yokku ma delluwaat ci foofu laa jeexale gone gi suñ ko nee yenti at boo dee góor war ngaa xam ne góor nga ci ni ko góor di xame soo dee jigéen war nga koo xam ñaari fukki at lañ ko àppal rek buñ ko joxee soxna lu ca man dara mu yem ak soxnaam loolu nag am na ñum dal jërut détaillé waaye am na ñum dal ci àdduna bi ñoo xam ne seenug man du weesu juróomi at ndax bañ ko waree sakkanal ngir gis rab yi ko jar ñu tiire ko ca xaaruñu woon ay rab bu ko jar lu jóg ñu tiire ba yàgg rab bu am solo woo xam ne mën naa faj seen aajo taxaw ñu tiq tiq mu ne nem ñu xool xool bal jeex foo yónnee ñu la stock boobu amatul kon lépp luy tax kersa jeex ci suñu société ñun soxla nañ kersa soxla nañ jom soxla nañ ngor loolu file ko suñu diine fekkoon démb ak bëkk démb bàyyee ko moo tax Cheikh Ahmad Tijani si doon na wax ci waxtaanam yu yàgg ya ne yàlla misaal la yàlla xeebut yéemut yàlla su xeebee diine Sénégal du ko mën a amee feneen ndax Sénégal la des rek kuy def di ci bàyyi xel yàlla suñu mel ne mbokk mu ngi fii ci Tuubaa day wax ak ab xaritam ba yàgg ne ko astaxfirullah du noonu ni la demee mu ne ko ah yéen de jafe ngeen yéen a ngi bàyyi xel naan yàlla mi ngi bind ba tey jii yéen a ngi koy bàyyi xel yéen ñun de des nañu seeree la loo xam ne fekk wuñ ko yëguñu ko xamuñu ka ñuy wax kum doon ñu ne wax na dëgg kon bokk bokk yi li ñuy wax naan sëñ bee ko waxoon nen bu ñu àggee ci jamono sàngam ku am nanga denc ca nanga nga ko e, lok ca bañ ba mujj roog seen lañ ko doon wax waaye roog seen laaj naa ko séeréer tekkiwut bañ ba féete pegg roog seen tekkiwut lool waaye daal mooy ca pegg ba te bul nga ba njangate di ko luqar ci foofu fa lañ àgg ñi toll ci am kàttanuk joxe seeni doom ci jàngukaay yu baax yooyu ñuy wax nañ bàyyi xel bu baax ne dañoo yor aw lay wu ñu war a layoo ak seen seen njaboot bu ëllëgee dañoo am lay wu ñu war a ak seen borom bu ëllëgee ndax ñu bari ñaan nañ ko doom mayu leen ko jox leen jox ko ko moom te it kii àggoon ci sukuraat di xale bu góor rek bu dëgër fanweeri at dégg bàyyam dégg ñu ne kuy bëgg a kuy sukuraat soo ko fekkee dal wax laa ilaha illallah ci kanamam ndax bu ko déggee wax ko ni yow mu mujj làmmiñam ba mu ko naan leel laa ilaha illallah dane ko luy loolu mu ne ko jàngal suratu yaasin mu ne ko luy loolu mu ne ko xamoo ko di ko wax mu ne ko oh, ba jàngaloo ma ko woon nag dari dog far kooku tàmbali naa yey am na ko it ci daara alxuraan yi lañ ko dugaloon mu gaaw a wàcc lool alxuraan wàcc goo xam ne da ko daa yóbbaale ab tari tàmbalee rafet mbind lool baayam ne ñëw ne ko cas ba ko yóbbu bitim réew wutal ko këyit foofa mu tàmbalee liggéey doom ji ne ko bàyyi man jàng alxuraan ma gënal wala nga may ma ma àggale tuuti mu ne déedéet tuutee tee mu am at yi ñu mën a yóbboo nit ana lu ko ca dal ba mu ko jëlee ci daara mu metti waa daara lool ba daara ja nar tas moom ma ko doon yóbbu daa yóbbante xale bi ci oto yi ne day jaar fii jaar fa suy dem yóbbaale xale bi moom bi muy dem ci yoon wi la yam xale bi it ba mu ne cëpp ci réew ma mu ko doon yóbbu daa fàq ànd ak waa réew ma léeg-léeg fi mu ne ni ñu dégg ku léeg-léeg du si ko dégg xanaa gone gi yaay na ko ba noppi bàyyi ma ma àggale mu ne ko du am ndax këyite da lay raw kon boog nañ bàyyi xel layoo ak suñuy doom ak suñu njaboot doom laa tudd rek waaye képp ku ne ci sa loxo yit day dugg ci lool moo tax ñi nga xam ne ñooy tëral aw njàngiin fàttali nañ ko ba tàyyi war nañ ca bàyyi xel doomi jullit yi ak layob ëllëg waaye ñi nga xam ne samp ay jàngukaay yu jullit yi jàng yit di leen yar war nañoo bàyyi xel ne la yóbbu ëllëg mi ngi ñëw soo gisee nag ñëpp te buutali daara yooyu bëgg nañoo jàng bëgg jàng xam-xamub waaye projet yi dafa jëmagut ci njàngam alxuraan ak njàngam diine faw ñu nit mënut a toog rawatina gone faw njàngaloo ko dara kon boog ñi nga xam ne ci diine la ñuy yëngatu tudd ay kilifa yi diine seen seen ay accident am na ñuy xëccook ñoom seeni doom bëgg leen a tàmbalee jàngal nu góor di mel ak nu jigéen di mel ci ñeenti at nañ fexe ba ko am ñaari at bu ñu koy faral na jëbalee ko daara ja mu doon daara ju baax ju am noflaay noflaay ba mooy fa ñuy nekk baax la ñuy lekk di baax ña leen yor ñu leen taxaw taxaw ku seenam xel dal ba ñu mën a yor gone yi bu dee beneen njàng mi beneen njàng mi la itam ñoom ñëpp ñi ci ëpp ay jullit lañ nañ xam ne xëy xëy xëy bis rek tëral la ci kanam ñëpp lal drapeau bi ci sa kaw di di la tagg ka tagg mu ngi ci kanam yàggatul su boobaa nag tagg li nit ñuy tagg amul njariñ tagg gi am njariñ mooy buñ la laajee nga mën a tontu sa diggante sa boroom ak sa diggante ak ñi nga fi bàyyi su boobaa it alxuraan yi jàng jàngal ginnaawam kenn ku nekk di wane ne ma ëpp lu ma lu ma ko jàngalit amalu ko njariñ ne yonent bi nee na bari na ko ñu ne yonent bee ko wax bari na ko jàng alxuraan alxuraan di ko rëbb di jàng alxuraan di ko yéene diw te diw mus a taxaw dara jëm ci alxuraan ak bokkam yàlla nañu ci yàlla njaboot gi nag ginnaaw dañoo mel ne fi ne nii eh, ku leen yor ci àll boo xam ne ndog ment yaa ngi ne gàññ bukki di ko jéem a alawtiku gaynde di ko alawtiku till di ko jéem a fóon si nañ ci gën a waggar te lii defaru njaboot di ko defaral avenir am ay diplom ca la bokk waaye jikko moo ca raw sëñ bu mag moo bind ci téeréem ne fa kasratul fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibatun ila bu nekk nga yor ko CV bu fees dell lu ne nga xam ko sëñ bu mag bi nee na yàlla na ko jikko gunge rek waaye su ko gunge jikki su ko jingo euh, jikko gunge wutit moom ci boppam day sonn sonal nit ñi nga xam ne ñoom la seqal kaw suuf si yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ki paqam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin man problème mu sëriñ rek laa baax. ak lu koy baax. TQG. TQG am na ay xeetu service de sécurité yu bari yu mucc ayib TQG am na ay xeetu poignée de porte sur plaque ou détachable yu inox anodinox samat diamant noir champagne lépp lu jëm ci pommelle ak charnière am nañ ko ci inox ak laiton te baax na ci brise de mer du xoy te du xomaak am na itam canot de sécurité yu baax ci couleur boo leen bëgg TQG am na ay panneau contreplaqué ak i formica ci façon couleur bu ba ci ay poignée meuble ak accessoire menuiserie TQG notre force la qualité